waaw asalaamaaleykum gars yi maa ngi nuyu ñëpp di sant yàlla si victoire bi ñu yàlla may waaw Bara Gassama Bara Gassama waaw temps fort match bi tey dañoo ñëw euh, presque joué nañ presque vingt minutes xamee ñu sax suñu booy parce que ñun d'ailleurs match yi ñu joué yëpp ñoo dominé suñu match yëpp zonal euh, bi on a joué ñoo dominé match bi yàlla def ñu perte ko ñu joué encore beneen finale départementale perte ko encore par série te ñoo dominé match bi yëpp aussi waaw mais tey yàlla suturaal nañu tey yàlla may nañu ndam ñu ngi sant yàlla bu baax a waaw mun nañ ne peut-être fatigue la parce que depuis finale départementale ba léegi booy entraîné tuñu régulièrement euh, équipe bi dafa amoon benn relâchement loolu moo feeñ tey mais euh, mosuñoo débuté match nii tey lañ ñëw di jouer match bi de demee noonu te bettuñu woon aussi quoi bettuñu woon mais au fur et à mesure bi match bi dawee si lañ gën a ñëw nekkaat si match bi taxaw. waaw discours bi comme d'habitude rek discours bi mooy jël nañ bii boo xam ne ñu ngi ko jël ci suñu temps fort ñun ñun bi ñu dominé jëluñu bii. mais bi ñu dominé ba nekk ci match bi si lañ jël bii parce que dañu dominé commencé nekk ci match bi euh, confiance bi ëpp. parce que boo xoolee ki perte de balle la dañu jël confiance jàppal bi di ci foo ba perte ko jël bii bi confiance bi ëpp moo tax ñu jël bii non xamaguñ ko xamaguñ adversaire bi xamaguñ ko waaw. ñu ñun moom comme d'habitude rek ku ñëw baax na dañuy préparé wu rek ñëwaat waaw dañ ci dem ba mu jeex parce que perte nañ ñaari final yaakaar nañ bii ce sera la bonne quoi incha allah waaw merci